abonnez-vous yi taataan ak safoo coow li Sénégal mbégte la ñuy su nekk di ànd di leen dëkkal lépp loo xam ne moom moo di xibaar yu tukkee ci biir réew mi ba ci sax ca bitim réew ku ne xam ne ne jamono ji ci langu politik ak li la élection locale yi ñu weesu am na ci ñoo xam ne ba tey kenn xamaguñ fu ñu féete Mame Gor Diazaka moom ci la bokk mu mel ni fa mu tegoon tànkam ba léegi teggiw ko. ki di laaj yooyu les résultats nee na ca Tëngéej moom moo ko gagné te du nangu kenn di ko xañ boobu lépp victoire mu mel ni bam ca jógee daal dinay félicité Ousmane Sonko Ahmed dara ak kile di euh, Barthélémy Diaz kàdduy Mame Gor Diazaka dafay firnde rek ne moom jamono ji dal dinay euh, nangul ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi ku sañu te bañ sañ nangu Mame Gor Diazaka ginnaaw bu mu euh, demee tey ci plateau bu nga xam ne moom moo di plateau bu Seneweb di bët set daal dina fay andi ay leeral mu mel ni dafay insister rek ci li nga xam ne moom moo di yooyu les résultat nee na Tëngéej moom moo fa gagné yëf yi dafa am lu laxasu ci biir te du bàyyi mu sedd nañu ko jox li nga xamne modi victoire am mbokk yi xarit yi li lañ leen doon datanal ci xibaar yi biir réew mi abonné leen activer seeni cloche de notification ngir ngeen mëna am suñu vidéo à temps réel